gisee fi mu toll nii coowul Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xamante mooy Sonko. Euh, Cheikh Bara dama koy féliciter parce que borom xam-xam la moom la ñu tuddee borom def gis xam nga mën nga am xam nga def te duñ gis mais def gis moom mooy confirmation que am nga xam-xam mooy ñu ne xonq cur weex tal ñuul kukk xam nga soo déggee kukk rek bu laaj na dafa ñuul lii dee tal la def bu fa nekk naa ndax dafa weex donc def gis ça dire que dafa am xam-xam xam-xam bu baatin zahir yëpp la am quoi Cheikh Bara mu ci audio moom wóor na ko ne Sonko feebarul bi muy dem sperme bi moo doon buux pour génn donc mbuur tëj na xale yi mënatuñoo génn 9h séminaire amatul dëkk yi tëj neen moo tax mu weeru mais ba muy dem ci aji Sarr guddi bàyyi garde koram bàyyi safaram maase yóbbuwut ko. mais loolu lan a nekkee te mu am ñaari soxnaam biir kër. Cheikh Bara ko wax ba tey xam nga ñoomi neen la yii biir kër la dama lay décortiquer rek mais ñoomi neen après neen ko rek la joom donc Sonko mu ne dafa feebar bay diwoo gerasu béy xaw ma gerasu yeew bàyyi ay soxnaam dem di marché wu ci guddi gi donc Cheikh Bara ne feebarut marché yóbbuut ko ñoom ñaar am na ko fen sëriñ bi ak ku sell ki ku ci fen laa bëgg a xam mais duul moom am na seen diggante duul bu tooy xepp xepp mu ngi tege parce que seen wax yi dafa juwaloo kii mu ne dafa feebar kii na ko wóor déglul sëñ Bara daf ne wóor na ma ne dara jotu ko mu ne wuur na ma ne ba muy dem marché yóbbuwut ko sperme bi bu bëggee génn day buux maanaam pour daanu loolu la sëñ Bara wax kële ne dafa feebar donc ku fen ñoom neen ko rek la ñoom i neen ñun arbitre rek leen su ñu leeralee ko fen ñu xam ne kii mooy baarale wala sonkole benn ñaareel ba ak sonkole dinañ xam ku ci baarale wala koy sonkole mais pour l'instant ni ñun mënaguñ cee yéey yàb bi mënaguñ cee àddu parce que ku sell ki la ak borom def gis dafa xat ci ñun daal donc beneen bi mu teg ci ne gaa yëpp dañuy soob yërëm naa ku dul sóob wala ku gëm ne gars yi soobuñ ça veut dire que Sonko faux type la mais moom Bara foo type la moo ko wax mu ne ko Ablaye Lo seetaan ma alxames danaa layal Sonko ba nga xam ne ñi koy layal mënuñoo lay <laughs> ça veut dire que laykat la te olof mu ne lay bu jubu terewul lay la sëñ Bara laykat la kon waxalut askan bi moom moo ko wax mu ne layal Sonko moo ko yóbbu na ko Ablaye Lo seetaan kon laykat la dafay layal Sonko. la mën a layalee wax li muy wax. waaw xam nga dëgg mooy la mu wax ci ron. kaw gi mu ne day sóob mu ne ñëppay sóob yërëm na ku gëm ne gars yi sóobuñ ba sóoboo kon moom gëm na ne Sonko rëkk na ci gënn gi d'après ni mu waxee moom moo wax ba tey man waxaguma su xaw ma ci dara man damay màndu ba pare ñoomi neen la gëm na ne Sonko rëkk na ci gënd ak Adji Sarr gi mais su yéegee ci kaw bañ ko taalal antenne Walfadjri mu sóob di lay la ma ca xam la nangam nangam information bi nii naan waa débat politique <laughs> foog na débat la non mais du débat donc nekk ci yooyu pour man. Euh, Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ku am xam-xam la man lu mu wax daal dama koy gëm le li ma gëm man Cheikh Baara wax ko mooy ku sell ki ndigam méttiwut maase yóbbuwut ko dafa buggoon a rëkk ci gënni xale bi mu teg ci ne na ko Ablaye Lo seetaan dina layal Sonko ba mu xam ne ñi koy layal mënuñ est-ce que yaa ngi dégg beneen bi li sëñ Baara wax te kenn mënu koo rafetal dafa wane posture Sonko ndax man dama yàgg di yuuxu Sonko du solution amul solution mais mënuñ ma dégg Cheikh Baara mu ne musta dugg ci palais lu mooy Macky Sall mu baax mi ku yaru ko teeki borom réalisation yu mag yi borom jéggalekat bi moo ko xaj-xajal mu ñëw pale sëñ Baara mu ne ba muy dem li gën a foor ci yëreem la sañse ngir da koo jomb Sonko sëñ Baara mooy wax ba tey damay damay damay damay tas wax ji rek nde ndeysaan keroog nag wéradeegul comme ni mu wéradee mu ngi njaab njaab bu nice génn di muuñ xam nga parce que dugg na pale mosu ci dugg benn <laughs> inspecteur domaine la woon doon nekkee fu lu ko ne ñu dàq ko donc mu am sens su pale mérite la donc moo tax Kaliphone tam dafa gën seen ndey ak seen baay parce que dafa toog ak président reer ak moom président di xaar avion mu taxaw ngir Kaliphone Kali di wax ak moom du n'importe qui moo ko mën a am journaliste yu bëri liggéey neen ba génnaat nu mos ñoo interview njiitu réew Kali du sax journaliste amul kayitu presse taal téléphone rek mun a wax ak njiitu réew ak première dame tête à ba heure bu ko neex mu bàyyi non waa Sénégal seet amul leen loolu leen ko yéen pale da ko jomb mu teg si ne ñun ñoo tooñ Ousmane Sonko ñun ñu ko teg fu mu yeggul waaye amul expérience xamul dara te bu nekkoon président ba dugg avion jóg xamul fu jëm ndax xamul fenn ci àddina Gàmbi gii mosu faa dem ba pare nag mu saaga waa Gàmbi ne président bu gën a niil ci àddina Gàmbi la ko yàlla jox te Adama Barrow la tudd loolu manque de respect la pour Gambiens yi franchement warul mu ne nag Sonko kenn rek lay tene mooy Adama Barrow xam nga wax bu ñaaw la. mais loolu mooy vraie identification sonk Sonko mooy comme bi gën a mag ci Sénégal boo bëggee siiw waxal ci moom boo bëggee am xaalis neel moo fi gën. dafa bëgg siiw moo tax mu wax ci moom tamit. gis na bunt bi sëñ Baara dóor na gars yi ba jàll nee na ñëppay sóob day sóob man moom félicitation sëñ Baara fi nga ko jàpp foofu la sóobal rek Sonko day xeewi bu xeewee nga jàppaat keneen àdduna ñëpp noonu la rek ñaata nit ngay gis man mii di tagg Macky Sall ndax du ma ko ba ëllëg di taggaat keneen c'est la vie su ma demee bay naan ndox mu tàng dafa am suukar moo tax bu amul suukar du ko naan mais man nag du ma opposé wu nguur rek ku fi yàlla teg ma xam ne yow la teg ma nangul la lu baax ma wax lu bon ma noppi su ma la ko mënee wax ci suuf wax la ci suuf noonu laay dundee lii mooy suma philosophie ku gis lu bon waxal ma respecté la ko c'est la vie quoi comprendre donc Baara Ndiaye nee na Sonko fiñ ko nit ñi teg la yeggut amut xam-xam amut expérience mënu dara donc waxi Baara Ndiaye yi dafa leer. da xam nga nag boroom xam la def gis la lu mu wax gëm naa ko Bara Ndiaye moom gëm naa ko moom franchement te li mu wax daf ma arrangé tamit nag. parce moo tax mu arrangé ma Bara Ndiaye moom gëm naa ko yàlla na ko yàlla defal jàmm wax na dëgg de ñaari waxam yi wute nag dafay wane ne moom ban posture la mais malheureusement wax na ne day sóob te laykat la daf koy layal mais la mu wax ci ron ak xaritam ba naan Ablaye Lo seetaan ma man loolu laa gëm mooy sonk dafa bëggoon a rëkk ci gënd gi mais massage yóbbu ko waaye pale da koo jomm mosu cee dugg. amul xam-xam ni expérience bu duggoon ci avion ba mu naaw xamul fu mu jëm xamul dara ci àddina ñoo ko tooñ ñun ñu ko teg fu mu yeggul lii yëpp wax na ko te man gëm naa ko te loolu la sénégalais war a gëm bàyyil ma booy bii mu dellu ci liggéeyam quoi xam nga sonal na nit ñi Sonko. mais mu ngi liggéey de gis nga li mu def ci mooy buróogam bi am na bu paan sax oto yi dafa paan paan na ndeysaan xam nga liggéey dëbb dëbb ak. ren ren kii am inondation yii. lañ wax. yooyu de yaay Babacar Touré bu jigéen. indondation yi nekk fii nga di ko gis nga ne am. ah ok d' accord loolu leen wax de duma ma la ci ne loolu leen wax mais ki ko wax dafa juum franchement am na inondation mais Sonko dafa xas jeune Séné jeune Casamance tiim leen wax leen bañ yaakaar ko wooteel ko mu ne leen bu fi bool booli dëkkoon réew mi jag bu leen xeeb Jakarta jàpp leen ci ci campagne bu leen waxoon ne Jakarta yi laa leen di bàyyee duñ ko wote. da leen dóor. dóor bu métti ah déggoo wax ci wax wax wax wax bañ fal la nga ne jàpp leen ci jakartaay bu fi bool booli dëkkoon defar ko ça veut dire que bool boole ñoo am jom ñoo am xel ñoo mën a liggéey waaye jeune Ziguinchor mënuñ liggéey loolu saaga gënu ko raw xam nga saaga du sa nanga mu ndey saaga xam-xam moo koy def Sonko dafa saaga Ziguinchor d'après man ni ma déggee parce que man dama dama mën a analyse tim ay ndaw yu la wooteel am yaakaar ci yow nga ne leen bu fi bool booli dëkkoon defar réew mi bu leen xeeb jakarta loo bëgg a mooy bool bool yi mën ñooy ay jeunes ñoo am jom ñoo nangoo liggéey yéen da ngeen ñàkk jom fii ngeen di toog di naan ataaya di naan ñàkk tang di xeeb Jakarta foog ne Casamance nangam et bu xale yi mënaloon seen bopp duñ ko fal. den ko fal pour mu dimbali leen buroog bi fi ñu koy lancé fu muy paanee benn la est-ce que du oto yu paanoon ni la ñu dajale bind ci buroog xam nga xott bu rafet ak biir bu rafet du benn. en tout cas bu fekkee oto yi jëriñ askan wi la tamu paan yàlla ko yàlla paanarte te ñu yóbbu ko ci mécanicien mais liggéey daal dafa war a am yoon tegu ci xam mu jaadu. xam nga dafa am pont bu daanu woon taw bee ko daane yàlla ji ñu ne Macky Sall liggéeyam baaxul mais nga lancé brok oto ba paan foog ñu wax ne Sonko dafa nilaar tamit parce que àdduna tëddee njaaxandaay daf ci baax donc nilaar moom mënut a dem.